candidats à la présidentielle de février se sont multipliés au cours des six premiers mois de l'année préélectorale du simple au double, voire le triple. Le nombre des prétendants va certainement augmenter avant le dépôt candidat yi nar a bokk ci élection présidentielle ci atum 2024 dañu yokk rek ci juróom-benni weer yi nga xam ne ñoo mujj ci atum 2023 lim boobee sax njort nañ ne dana weesu foofee laata ñuy déposer candidature yi ca conseil constitutionnel ndogal bi nga xam ne kii di président de la république Macky Sall jël na ko ne du bokk ci élection yi dina tax ñu bëri ñi nga xam ne naruñu woon sax samp seen dënd ci élection yi amal ay candidature loole nag moo gën a nar a yokk limu candidature yi ñu nar ci ràññee ay politique ay chef de parti yi nga xam ne ñoom ràññee nañ leen ci làngum politique bi waaye itam dina am ay cadre administration publique wala privé yu bokk ci candidature yi mën nañ ci nemmeeku yitam beneen catégorie bi nga xam ne duñu ay politique duñu ay technocrate waaye danañ ñëw samp seen ndënd mën nañu sax jóge ca bitim réew wala sax ci mouvement société civile yi wala ñu doon ay acteurs yu jegeyantewul benn yoon ak nguur loolee nag waral ñu nar a am ay candidature yu bëri te wute kan moo nar a jiite langue bi pouvoir wala opposition laaj boobee dana jafe tontu ndax li ñu tàmm di gis ci élection yu ni mel mooy rek président sortant bi wala ki ko wutu ci parti bi moom mooy jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom moo jiite opposition bi waaye ci atum 2024 mbir yi dafa nar a soppeeku ndax président de la république dafa war a tànn ki nga xam ne moom moo nar a doon candidat benn Bokk Yaakaar waaye itam ca kujje gi itam amul benn figure de l'opposition bi nga xam ne dafa ràññeeku ba ñu jox ko titre ne moom moo jiite opposition bi kujje gi dafa bëri te juboowu ñu benn yoon ci kan moo war a jiite langue bi ba na élection présidentielle yu ñu dëgmal xëccoo bi ñu ràññee woon ci élection yi ñu weesu naruñ ko gis ci février 2024 candidat opposition bi yépp ñoom ñoo nar a jàkkaarloog kii di candidat pouvoir bi ba tax na ñu nar a am campagne électorale bu ñàkk xorom bi nga xam ne day wuteel lool ak li ñu xamoon ci ay campagne élection présidentielle